ñun ñi nga xam ne nii ñoo seq mbir mi di ci jëflante ah yaakaar naa sëñ Xaadim mii mën na ci seede jawriñ Tuubaa mën na ci seede Cheikh Abdoulaye mën na ci seede ñoom ñi nga xam ne nii ñooy topp mbir moomu ak mboole ñi nga xam ne nii ñu ngi teew suñu daje kon nag daa jaadu ñu leeral ko dëkk bi daa jaadu ñu leeral ko waa dëkk bi ne sëñ Xaadim bis bii am na fu mu ko war na jànge ji war na jànge ngooñ suma juum waaye sàmm wóolëre ak bëggul leen bëggal ak jàpp leen yàlla ak sëñ Tuubaa rek tax waaye du ngeen ko jox de wallaay laa si ndax wóor na leen li ngeen ko jox du mut ñu bare fuuf mu ñu jot ci moom bari na ñoo xam ne nii seen bis moom mooy tànn ba xam ne bis bii daal dana féex mat leen a jàngal fii la ko jël ndax it wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek yàlla bëgg suñu borom moo def loolu képp koo xam ne ni yaa ngi tànt ab tànt boo sañal suñu xaadim moo koy jàngal bu la ko jàngal tamit ku jaar moo la ko jàngal kon suñu xaadim ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la ñaanal di la ñaanal sax la ñuy wax yàlla borom bi subhaanahu wa taala may la wér guddal ba li nga yéene ci xasida yi suñu borom defal la ko ak tout tànk yi nga xam ne nii ñoom ngay àndal ak ñi nga xam ne nii ñu ngi dugg xeeñ sa mboor ngir bëgg xasida yi wax naa ko suñu xaadim nee naa ko suñu xaadim li mu liggéey ci xasida yi dafa bari dafa am ku ma doon dolloo ak xasida ah sama benn wëlëre xasida di wajax bi ko lii laa si fàttali wala mi na ni man mosuma ko tëj bët waaye suñu xaadim laa ko déggee wallaay naa si ma wër ko Dakar aw ma ko ma dem Poroxaan bi ko ma dem wër ku ma dem nga ne ku ma dem nga man nag maa ngi jàpp wa far yu du am rek ilallah loolu laa doon laaj ma ñu benn jaaykatu xasida ma laaj ko mu ne ëmb ko ma xool gis mu bind ci nihmatu rabbil alamin ak xidmatu xayri alamin xam nga bu aw ak daaw ma ne ko suñ bi xasida xasida gi mi ngi nii mu ne ma dee xasida mii mi yàlla ma ne ko jox ma bu baax a baax a baax di ko gërëm li ñuy bu ñëpp seeree ba bàyyi bu ab ñoxor xob bu kàntoo sooy na mbëkk na xeer kon li des mooy rek fësal ab liggéeyam te suñ Tuubaa tax loolu ñëpp dañ ko ko war nangul loolu waa yoo xam ne danaa wax danaa wax danaa wax danaa wax li nga liggéey comme ni ko waxee woon sax danaa liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wax li nga jëf dinaa liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wax li nga jëf ak donte ak baabe gis jant yi gën a leer kon suñu xaalis yaakaar naa bu dee ci xasida yi jant bu leer la yàlla na la yàlla guddal sa fan te may la wér xam nañ bu baax a baax jàpp gi nga xam ne jàpp nga ko suñu dëkk bi xam nañ bu baax a baax a baax jàpp gi nga jàpp bis bii ak ñu ngi ko seqal wallahi raas yi dama nañ ba ñàkk yaakaar waaye mu ne déedéet may leen ma rek ma gën a maslaa may leen ma gën a maslaa ndax bëggul kenn mer ndax kuy liggéey suñu am na lu la ci na la fi yàlla yàggal yàgg mboolem ñi nga àndal bëgg nañ lool sama xol sedd na njàng mi yàgg na lool comme ni nga xam ne ni ñenn ñi nga xam ne dañu laa bëgg ba amul sago ci yow dañuy bëgg ngay jàng rek te coono yi métti na wax dëgg yàlla coono yi métti na foo jógee yaa ngi feneen foo jógee yaa ngi feneen ndax ñëpp yi tëwoo la yal na la yàlla kàttanal te yara dëgëral la kon loolu lañ xamante ni li ñuy li ñuy li ñuy jot li mu bàyyi koo ci mu bàyyi koo ci ci ci ci làmmiñu waa daayira bi waaye mu bàyyi koo ci waa dëkk bi yëpp ndax ñëpp la seen xol sedd kon nag ñu ngi soññaan ndaw ñi bu baax a baax a baax a baax ñu ngi soññaan ndaw ñi bu kenn yafuus kenn wër a yaafus ñëw leen ngeen jàpp ci liggéey bi ñu liggéey liggéey bi bu kenn des ginnaaw bu ñu wootee réunion bàyyi leen li ngeen jàpp ñëw teew 16 heures am nañ réunion na ngeen ñëw teew ci réunion bi xam li ñuy wax lan la ngeen yittewoo ko luñ ci santaane ngir taxaw ñu def ko yéen ñëpp a man ngir yàlla jàpp nañ liggéey bii ni ngeen ko jàpp nii ren na ngeen ko jàpp ne mu wéy ñu ngi sant waa daayira mat la foofu si ne liggéey bi nga xam ne dénk nañ leen ak ñi nga xam ne nii ñoo yoroon wàllum sécurité bi organisation waa Baye soppe maam Serap Fall ba ñu nga waxee démb ba léegi ñu sa bëgg waa daay rokaan xàqan ñëpp jàpp kenn ku nekk la ñu dëjgan def nga ci ba def ci lu kawe sa njot man de wax dëgg yàlla sama xol sedd na tapar nañu ñëw ci man gaaral ma loolu kon nag ñu ngi sant xale yi ak ñi nga xam ne ñooy waa association de développement de Mboussaly xale yooyu ndeysaan gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax léegi la ma ko jëwriñ di wax kon ñëw jàpp liggéey bi xam ne liggéey bi amul lu dul moom bis bii la bu bu ñu réussir bu échec ñu sonn kon nag jàpp leen ci bu baax a baax a baax bu séeséer na ngeen ñëw dagg nelaw yi réglé leen seen réunion yi ñëw fekkee si réunion bi xam li ñuy wax liggéey bi onze millions onze millions et quelque dem na ci mbaar mi ñu kii ñoo xam ne defuñ ci benn dërëm loolu nag gàcce la loolu gàcce gu rëy rëy xam ngeen li xew lan la jiméen yi tëw liggéey bi ngeen ñëw def bokk ci liggéey bi bari onze millions dem na ci mbaar te xam ngeen des na lu bëree bëri te am na ñoo xam ne nii seen dërëm dem loolu tegul fenn léegi nag lu baax lu baax ku ci def jariñ ku ci def ginnaaw yaa yaafuus waaye ñun ñi nga xam ne ñoo seqal liggéey bi xam nañ ñi dox ak ñi doxul kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp dëgg nag neexul ala kulli aal dana am ala am ñoo ngi sant ñi nga xam ne ñoo jóge ministère indi sees ñoo ngi sant ñëpp yu jàpp ci liggéey bi ñëpp ñoo ngi leen sant xale yi ñi nga xam ne ñoo leen jàppale xale yi ñoo ngi leen di sàkku ci yéen ngeen jàppale waat mbooloo bi nga xam ne ni ñoo bàyyi ko ministère ministère si ban tegaat ko yéen ñi nga xam ne yéen leen déggan wàllum organisation bi waaye nag leen ñëpp jàppale ci liggéey boobu kon xam naa li ñuy def mooy jëbbal kàddu yu kilifa yi bu ko defee ñu ñaanal mbooloo mi tey li ñu bëgg lépp ñu fas ko ci jërëjëf wa salaamu aleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di wax mbooloo rek ñu bokk commencé teewlu kàddu yi nga xam ne moo jóge ci Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Babacar Sadikh Ndir mu jóge ci kàddu Serigne Mouhamadou Ndir moom Cheikh Babacar Sadikh Lô mu jottali kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yónnee na ko ci mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teewoon fu waaye mën a jóge ba teew ci bis bi ak gone yi dëkk bi nga xam ne ñoo doon amal bis bi ci taxawaay bu sell ci ak rafetal ak yaatal ak bëgg dëkk bi ak bëgg sëriñ baaba ba tax ñu amee pas-pas bii kon na ñëpp bokk teewlu sëriñ bi mu soññewaat lu ci jaamu yàlla ñaaxaat nu ci gën a yokk suñu war war war maay dëkk bi gën a bàyyi xelit dëkk bi surtout ndaw ñi ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñu kon ñu teewlu sëriñ bi bisimilah Cheikh Mahamadou Nasir bismillahi ma seytaan rajim bismillahi ma seytaan rajim bismillahi ma seytaan rajim laa laa laa xoota illa billahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad ak saabam di leen sant bu baax gis nañu liggéey bi gis nañu coono yi waaye ki nga xam ne mooy sëñ Baba te nekk fi tey seen ak fekke ak seen ak la yemale ndax diira ba mu toogee di xalifaab sëñ baaba ak léegi ma di ko fekk Tuubaa Lambaay ga mu nekk ba nga xamee ne kàttanam ak xelam lépp suñu borom eh, jàppandil na ko ba man di wax ak man ni ma ko bëgg ak na ma ko bëggee saa su ma teewee fi moom seeni mbir danaa ko ko wax danaa danaa ko diis seeni mbir ndax wér fan wu gudd ngeen bëgg ak xéewal yu ngeen liggéeyee ak a jàmm yàlla mu xamal ma ne ma feeg maa ngi fi lu ñu sumb tàmbali ko dina yegg xaw ma ne ku tàmbali waaye ku tàmbali di nga yeggale wax na ma ko ay yooni yooni yoon kon nag na séenam xel dal lépp loo xam ne lii ma aajo woo ko bu yéene mënulu ko teg leen ci seen dënn dina ko diis sëñ baaba na ko bëgg ngeen amee ko lii day seen ab cër cër nag mënoo fexe mukk ba lu ka ko moom rekk moo ko war a doxal am na ñu ko bëgg waaye ci yéen la ko yàlla natt ba ngeen àttan ko mu teg leen kon na ngeen góorgóorlu bu baax lépp lu waaye sàkku ci dëkk biine yi te ànd ak ak jub ak ak taalibe sunu borom dina la ko jox képp ku ci wut leneen lu dul loolu itam sa bopp dong lay wàcc doo ko bokk kenn man nag ngeen yëg ak ngeen ñàkk yëg muy guddi muy bëccëg maa ngi ñaan ci barkeb sëñ Baaba lu ngeen yóotu ngeen jàppandal sëñ baaba jàppandal leen ko bu ngeen man koo jot ni ko li nga xam ne di nga maam moo nekk ci daayira bi lépp am na joro xaw ma ko waa am na joro lu bari loo xam naa ko kiy daw ak kiy waaxu ak kiy dox ñëpp xam kon na ngeen xam ne lépp loo xam ne nii waaye jëf na ko ci sëñ baaba ku ko lebal ker mu fay na guddi kon képp koy jëf te li ngay jëf gisoo ci la la gënal làmbaatal sa xol ci yaw la dese ndax sëñ Baba day koo xam xam ne ab cëram ni ñu ko ko joxe yombut kon na ngeen góorgóorlu bu baax noo ngi fab suñu bët teg ko ci yéen noo ngi leen di ñaanal bu gudd ak wér ak yàgg fi te lépp lu di ay ngëneel te ngeen soxla ko fu mu lu mu sori sori sori noo ngi ñaan ci barkeb sëñ baaba mu ñaanal nu ci barkeb Mandiel Fall mu sëriñ Basiiru sëriñam ba loolee tegu ci seeni loxo ba ngeen jëfandikoo ni ngeen ko bëgge ci seen sago sant nañu leen bu baax sëriñ Mourou sant na leen bu baax gërëm na leen gis na seen ab liggéey gis na seen ab taxawaay xam na ko bu baaxet kon lépp loo xam ne di nga moom aajowoo ngeen ko rek na seenam xel dal di ngeen ci jot te bu leen yàkkamti nag ndax yàkkamti yàq rek lay jur ay ndaw ngeen yéen a soog a dugg àdduna dara wéegut ci yéen dara jombut leen lu waay defe ne ndax mënoo koo am ñaanal ak wér boo fa yàggee def dinañ ci jot ndax kit sanc dëkk bii de ba mu koy sanc ay téere la yor jóge biir gànnaar fi mu jaar fépp mënu ma leen koo wax waaye waxtu juróom-ñeenti waxtu la yëg fii ci démbi ma aw fas la war bind ab téere jàppalu pitaxam ma rem takk ko ca baat ba fas wi mu tàggoog teeñ tanoor ci fii ci làmbaay jëm si fii fas wi dox pitax mi naaw garab gu mu toog rek mu mu dàq fas wi ba mu fekk ko mu toogaat ba ni mu yëgsi ci barab bii mu tëdd tey ndax booba leer ak leer leer ak leer la fi gis ca gànnaar wër na ko ay at ni sëñ Tuubaa wëri pàkkab Tuubaa door a ñëw fii ay déema fi nekkan ak sawat def mbaar ni ñu ma ko waxee malaayka yi ñoo daan jóge ars di fi sikkar ba nga ars ñu delluwaat ma ndir gis loolee looloo koy gis yoor yoor la fii si ba bi tax mare mi toogee ci kaw gédd gi téere bi dagg bi ci biir moo xam ne fii la doon seet yenn koy téere kon na xam ne dëkk bi dëkk la boobu lu fi waay sàkku te ànd ak ak jub di ci jot leneen lu waay wut nag te wutawoo ko ci ab jub boo ko amee bu ak njëlbéen gi du mu jóg yow kon na ngeen doonee góorgóorlu bu baax yal na yàlla sàmmal leen seen ak ndaw ba ngeen yegg seen ak mag yàlla may leen leen noppal bala gën a sonn sëriñ Moudou gi di sant mu ngi leen di ñaanal guddi ak bëccëg ca ba mu koy tal saa yu ma jàkkaarloo ak moom mu ne ma ne leen na seenam xel dal du ñu aajowoo rek nañu rafet njorot ne dinañu ci jot ah li li ma leen dolli nag mooy su ngeen bëggee dem bu leen geesu ñi ci seen ginnaaw ndax ñi fi ñi baax kat la am dañoo sakk seeni nopp xool seeni bët fi ñu jublu ñu bañax a euh, dellu gannaaw waaye dégg nañu lu tax lool mën na leen a gàllankoor seen digg waaye loolu lépp dañu koo gannaawal kon li lu waay di wax bu leen ko déglu fi ngeen teg seen ab dana tegee seen ab dana dégg sëñ baabaa ngi ci seen kanam mi ngi seen ginnaaw bu leen am lenn lu ngeen di tiit te ngeen doonee jàppante boole seen bopp muy benn lu ngeen song daan ko lu leen song dina daan kon noo ngi fas yéene ñaan nag ci yàlla ak Seex Baaba ni ngeen ko bëgg te mu gën ci yéen yàlla jàppandi leen ko ba ngeen def ko ni ngeen ko bëgg mel nii euh, ki doon def kat joxe kàddu yi cant yi muy kenn ci njabootu sëriñ bi Cheikh Mahamadou Bassir li yore kàddoo xalifa mu mel ni mi ngi fay goog ay rakkam ak i doomam ak xaritam ak i bu ñu tuddee kenn ci sët yi muy sëriñ Babacar Ndiir moom ibnu Cheikh Siri Ndiir ak sëriñ Bouna Ndiir ak Seydina Aline moom seex seex xamadu Ndiir ak njaboot gi yëpp ñu ngi toog noonu doon teewlu kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yëpp la yëpp la ne ko sëriñ ba Bassirou war doon joxe kàddu yooyu. ñu poroxlu ci rek di sant bu baax média group sëriñ Ngom ñing sëriñ bi nga dolli koo ñaanal bu baax a baax ci pas-pas ak yéene bu mu am ci liggéey bi muy def. Euh, moom it liggéey bi ban ko ko waxee mu wane ci yéene ak bëgg ak wane ne ci la bokk. wone na it lan cay tegu moom tegu ci dara luñ ko ci jox rek loola doy na ko sëkk wala mu ëpp ci moom waaye lay bëgg-bëggam ak yéeneem ñu ñaanal ko ci li muy jëf ba fuñ ciy dégg tele yu kawe yi ak yeneen liggéey yu kawe rek ñu déggu fa loolu rek la ci façon ci liggéey bi moo tax ñu ne dañ ne ko jottali ndiir nga ñaanal ko ko ba yéene ji nga xam ne wax nañu ko ñu xam ko xam tolluwaay ci liggéey bi xam bëgg gi mu ëndaale Bousso te dëkk bi nun rafet nañ jort bu baax ci ne Euh, képp ku fi teew rek loo fi fas rek jàpp nañ dama nangu ndax liggéey bi moom ci jeexital bi rek kenn ku nekk xam ne ne euh, jëf ji moom borom nangu na ko te loolu dal na xel bu baax a baax a baax ci waxtu wi liggéey bi jeexee kenn ku nekk yëg na sa bopp ci ne liggéey bi moom Seex Baaba nangu na ko ci liñ ciy néew néew xam-xam jërë ngeen jëf bisimilah ñu teewlu sëriñ bu ñaan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 بربنا ما هي تاخذ صائبة ولا ولد وإنه كانوا يقولون صافنا على الله سرطان على الله سرطان على الله سرطان اللهم نصر لك صدرك وولنا عنك اسلك بسم قدر سرك وارفعنا لك سكرك فإن مع الأسرى إن مع الأسرى فإن مع الأسرى إن مع الأسرى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فأجر صبيبا yaa maalika mulki yaa man jaaro xol yi raxam ndimbal ak yërmande aji fan mbir mu fan guddal ak wér mucc ak yokk ak yàgg barkeb Cheikh Baba barkeb Cheikh Mountakha barkeb Mame Mandir barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yaa man ajaaba man istajaaba am li jaab bi sabila wa maa tawfiiqi illaa billaah yàlla na ko teewaat na ko si bi